waaw waaw li bi eh, man li door lu ma def man nii man lu ma wax wax ko yet yet mii daa jar a waaw waaw ndeysaan Tony Junior daan na sa waay ba jéggi ko romb waaw waaw ordinateur ak nga xam ne moo di Malika ku nekk am na benn avertissement nee na leen bëri leen ndeysaan Mamou Zidane ba tey ak Bruno a sifflé jël na tànk ba waaw ngoobu na ci kaw Mamou Zidane Birino Mamou Zidane Birino laa ilaaha illallah lii ba jàmm la Birino ngoy mboot Birino mboot kat la Mamou Zidane la nga mën si ndigili ndeysaan ay waay xale yee mën a bëre oho takantaan gone yi ñoo ko raw waaw waaw moytul ma tànk Birino boobu mboot kat mu nekk jàpp na si sa ndombal tànkal morom waaw waaw moo dem na wër na ko ndomba Mamou Zidane wër na ko ndomba mu xool ndeysaan nu ñuy mujjee arbitre waaw bi noo bu bari maamu si daan waaw waaw mu koy jéem a mboon ndeysaan ndeysaan saa nga tegal seen waaw daan na ko waaw waaw waaye yéen tamit at bi lii mooy waaw waaw Maamu Zidane Maamu Zidane daan na ko ndeysaan waaw waaw Maamu Zidane waaw waaw bëree doole doxul jàmm ndeysaan waaw waaw xale bi xool ko